suñu gan yi nga xam ne yàgg nañ leen fi teeru muy waa énergie pour le développement dëkk fële ci région Toscane euh, ci booru Florence ñoo fi ñëw di ñu jàppale ci wàllu électricité boo xamee ne ci naaj wi lañ koy jële mais ñu indi ñu tam ay équipement yoo xam ne dafay dañ koy utiliser ci poste de santé yi xam ngeen ni am nañu ñetti poste de santé fii ba nga xamee ni nii muy ay lal muy ay matériel boo xamee ni chirurgie bu ndaw bi faj yu ndaw yi ci lañ koy defee mooy ay euh, yére yoo xamee moom la docteur du sol muy yëre yoo xamee moom la infirmier ak ñi nga xamee ñooy faj moom la ñuy sol ak ay garab yoo xamee ni du garab yu ñu naan mais garab fajukaay ñu indil ñu ko fii ci Mérina Dakhar boole ci nag indil ñu ay vélo yoo xamee ni incha allah dañu ko bëgg a jox élèves yi nga xamee ni ñoo gën a xarañ ci biir Mérina Dakhar parce que xam ngeen ni euh, am nañu ay CM. am nañu sax lycée mais lycée yi dafa am ñu mu sore te am na ay xale yoo xam ne dañuy def ñetti kilomètres ñeent ba juróomi kilomètres pour ñëw jàng si ñun nag dañu jàpp ni xale yi nga xamee ñoo ci gën a xarañ am ay résultats yi gën a baax dañoo war a jël fanweeri velo ak juróom-ñaar yooyu tàmbalee ko jox leen bu ëllëgee ñu amee yeneen ñu jox ko ñi nga xamee ñoo gën a xarañ ba keroog ñuy mën a dimbale xale yi. pour que bu ñuy dem école mu gën a yomb ci ñoom ndax seen xel nekk ci jàng parce que xam na ni ci njàng bi ci la développement Sénégal ci la émergence Sénégal ëllëg ci lay sukkandiku pour ñu mën fa yegg loolu moo tax ñu def ko. est waa ñu ngi ci bu baax xam nga bi may mairie juróom juróomi dëkk rek ñoo fi amoon courant wax naa ko léegi am nañu ñaar fukki dëkk yu tegal yoo xam ne am nañu courant euh, ci wàllu éclairage yi nga xam ne ñu ngi koy def ci village yi association bi leeral na fanweeri dëkk ak ñaar fanweeri ak dëkk ak ñaar nag tuutul parce que boo ñëwee ci dëkk place publique ba nga leeral ko la nga xamee ni moom la nit ñi di booloo nga xamee ñoo ko bokk nga fexe ba def fa énergie bu dee jàkkal la bu dee fu jigéen ñi di daje bu dee case de santé la nga leeral ko loolu dafa nekk lu am solo te association bi ci juróomi at yi def nañ ko ci fanweeri dëkk ak ñaar kon ñu leen ci sant bu baax di leen sant tam ci li nga xamee mooy initiative bi nga xamee ni jël nañ ko tey mooy fexe ba poste de santé yi ñu fexe ba def fa énergie solaire boo xamee ni ñoom dinañu mën a am autonomie ci wàllu courant tey ñi ngi koy def kel mais ëllëg dinañ ko def Mérina ndaxaar dinañ ko def njëriñ dinañ ko def feneen foo xam ne nii soxla nañ ko fa parce que loolu day nekk loo xam ne def ñuy dimbali ñun en tant que commune parce que xam ngeen ni loolu ñun la waroon parce que charge courant yi ñun la war donc bu ñu demee ba loolu ñu oyofal ko suñu kaw dinañu dimbale ci li nga xamee mooy. Euh, alal ji nga xamee moom la commune bi am te xam nga ne alal ji bariwul pour ñu jëm ko jëmale ci yeneen gox yoo xamee ñu ëpp solo ci ñun pour jàppale askan wi pour ñu mën a jëm kanam. waaw xam naa ni dina am retombé ci wàllu alal sax parce que bis bu demee ba pare euh, usine bu toll noonu ku ko def ci sa commune dina fay ay patente mais li ñuy jëkk a wax mooy njariñ bi mu indil Sénégal Sénégal président de la République dafa wax nii dafa bëgg courant bi doy mais ba pare eh, fi ñu ko daan toggee di ko ko tab di ko ko liggéeyee mu fexe ba li nga xamee ni moom la ñu am te loola kenn du ko jëggaani fenn ñu def ko ci mooy énergie renouvelable di jóge ci ngelaw li di jóge ci janeeru jant bi loolu nag président dafa nii dafa bëgg téeméer yu ñu ci def fanweer yi nekk lool kon nag bu ñu ko defee fii ci mairie Ndaxaar def fi loo xam ne dañu fi def centrale wu ñaar fukki mégawatt nga xamee ni nii département du Tivaouane mën na leen jox courant te itam ñu ne bu ñu ko defee ba pare dañu koy multiplier par deux defaat beneen ñaar fukki mégawatt nga boole ko ak li nga xam moo am sancu mexe boole ko ak liy tabax euh, li war a am Taïba Ndiaye loolu yëpp soo ko boolee day dem ba mat lu war a mat ñaar téeméer ak juróom fukki mégawatt yoo xam ne dinañ ko def tamuy muy jógee ci énergie renouvelable loolu nag lu ama am solo parce que bu ñu nee président nee na dafa bëgg bu ñu demee deux mille vingt ñu war fi installer lu war a mat mille mégawatt ci biir Sénégal. Sénégal amoon lu mar a mat ñetti téeméer rek te loolu yëpp nag bu ñu ko defee juróom fukki ñaar téeméer ak juróom fukki di jóge ci jeneer gi ak ci ngelaw li kooku lu am solo la te ñun nag dañuy sant yàlla bi nga xamee ni ah euh, mbay moomu wax dëgg yàlla ñun suñu commune ak suñu département kenn jiituwu leen ci kon ñoo sante ko yàlla te xam ne yàlla moo ñu dotee ci nature boo xamee ni xaj na ak projet yoo xamee ni nii secteur privé bi daf ñu tànn ñuy ubbil leen nag yaatal leen ba pare recevoir leen ba pare accompagner leen pour loolu mën a nekk loolu moo tax mu nekk fii ci suñu benn liggéey bi incha allah dina tàmbali balaa join jeex ñi ngi ci formalité yi pare nañu sore nañu lool sax waaye nag balaa juin dinañu ko dinañ ko tàmbali tàmbali liggéey bi te incha allah ci diiru fukki weer ba fukki weer ak ñaar dinañu réceptionner liggéey bi ba nga xamee ni balaa juin 2017 bu neexee yàlla vingt mégawatts yi na opération ñu ngi koy def ci dëkk bu ñuy wax Mbuki diggante mbukki ak gis kooku nag mi ngi ci route nationale bi tolloo rek xaw a jàkkaarloo ak euh, euh, pompe surpresseur u SDE bu ngeen yeggee foofu rek xam leen di yéen a ngi ci zone bi incha Et ça, c'est la chose euh, plus importante pour nous parce que est, est très volenterosa, incentivante. Sì, sì, sono attive. Attive. Et c'est très important pour nous avoir votre euh, participation. participation. Nous avons l'intention d'aller avant, de faire, de faire beaucoup de choses. Nous sommes pas euh, des... Nous avons beaucoup de personnes qui sont avec nous euh, dans notre... Euh, dans, en Italie, qui, qui vont euh, aider notre association, à soutenir notre association. Et nous avons euh, vu que beaucoup de personnes ont la volonté de faire. Nous sommes venus ici la première fois en trois personnes. Et après, la deuxième fois, nous sommes venus en 17 personnes. Et maintenant, nous sommes venus, et cette fois, nous sommes en 12 personnes. Mais euh, euh mm, toutes les fois, ils sont des nouveaux personnes qui vont avec nous. Nous avons notre fille, nous avons notre euh, garçon qui vient avec nous et c'est très important parce qu'il signifie qu'il peut signifier les proséquements de cette euh, euh activité en Marina Dakar. Merci beaucoup à, tout, à tous les membres.